mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu eh, dellu siwaat nañu seen jataay bi ñu baaxoo ànd ak yéen eh, te mooy xayaat Cheikh al Xadim di dunduk sëriñ bu mag bi ngeen baaxo ci ànd ak muqaddamatul xidma TV te gi di bàyyi ko fii fii jumaay Cheikh al Xadim bi ci Tuubal Maxrus ñu ànd ceeg itam nag daayira muqaddamatul xidma di nga xam ne ñooy saytu jumaa ji ñu ngi ziare ñëpp di nuyu ñëpp di di ndokkeel ñëpp ci xew-xew yu mag yi nga xam ne moom lañu wees weesu nañ ko waxoon ci émission bi jàll di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér mu ba mu àggale ay yéeneem ci naalam ci toolub lislaam bi nga xam ne mooy toolu Cheikh al Xadim eh, ak eh, mboolem ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ci liggéey bi yëpp di ko ñaanal kilifa diine yëpp ak jullit ñëpp mbokk yi xam ngeen ne ci jotaay bi weesu ñu ngi doon waxtaane ba tey ci biir dunduk sëriñ bi waaye ñu doon laytaaye lu jiitu njàngum sëriñ bi ñu doon laytaaye ñi nga xam ne kilifa yu baax yi nga xam ne dañ koo waroon te ñu bari ci ñoom jàngal ko ñenn ñi di way jur mën naa mën naa sax ñëpp di ay way jur ndax waxtaane nañ suñ morant seli waxtaane nañu soxna jaaratullahi yi nga xam ne moom bu ko jàngalut ni ab di jàngale ab donga itam eh, def na ci moom yar bu sell am solo bu bu bu bu ñu xam euh, biñ ci jógee ñu waxtaane ci jataay bii weesu ki nga xam ne moo di maamam waaye di bàyyi taxam ñu ko leerale woon di tafsir Mbàkke Ndumbe euh, tey jii nag ñu war a ñëw waxtaane euh, nijaayam di sëriñ bu soobe sëriñ bu soobe xam naa loolu kon danañu delloo ci bayit wa nga xam ne moom la sëñ Masamba Mariam waxoon ba muy jeexal xasida gam doon tagge soxna jaara te waxoon ne amma axuha abuha xaaluha fahumu xayrul mashaaiqi xayrul mashaaiqi axlaaqan wa adyaana ba muy jeexal dafa mel daa ubbi woon bunt dañoo ubbi loon bunt boo xam ne biñ noppee ki soxna jaara rek dañuy daal di jëm ci ñooña mu tudd mbokkum soxna jaara ma amma axuha mbokkum soxna jaara ma mooy sëriñ bu sobi mii ñu war a waxtaane tey xaaluha wax na ko mooy nijaayam nijaay soxna jaara kon mooy nijaay sëñ bu soobe kooka mooy tafsir mbàkki ndumbe mi nga xam ne moom la ñu woon ci jotaay bi weesu abuha di woy juru soxna jaara di cheikh mouhamad bu soo gën a siiwe ci ma bu soo awa mbaay bu defee nag kon ñoo ngi dafa wax ne ñooy xayrul machaayix ñooy ngën ji sëriñ sëriñ ji ñooy ci ñi ci gën lañ bokk ci wàllu diine ak ci wàllu jikko gis nga fa waxul askan sax waaye dafa ne diine diine moo leen baaxal waaye jikko itam moo leen baaxal sëñ biso bi moomu nag mooy mooy nijaay sëriñ bi kon ni ko Masamba Mariam waxe ndax mooy mbokkum soxna jaara bokk ak moom lépp soxna astawaalo Mbàkke di seen wayjur bu jigéen sëriñ Mouhamad Bousso mii ma waxoon léegi di ma Bousso Awa Mbaye di seen wayjur bu góor waaye ni mu doone ni mu sëriñ bi noonu la doone sëriñam ci wàllu jàng jàngal ko alquran danañ ci ñëw buñ ci tollee waaye fii dañuy wax ci moom lenn ci ay jikkoom ak lenn ci ay meloom bu ko defee du ñàkk ci jataay bi ciy topp buy jàllee euh, bay topp ci bee di ñëw incha allahu maanaam maanaam buñ buñ buñ waxtaanee ci ay jikkoom ak meloom ba noppi nag defaat beneen jataay boo xam ne incha allahu dañ koy jëmale ci digganteem ak sëriñ bi su boobaa dana am ay mbir yu am solo yu ci feeñ incha allah waaye daal ñu xam ne nijaayam la yëmul ci doon nijaayam waaye xaritam la woon doon soppeem doonoon itam sëriñam ci wàllu jàngal ko alquran ba noppi it doonoon niroo waaleem itam nag ci wàllu jikko nag rawatina loolu itam dana feeñ ci bu ñëwee ci diggam ak sëriñ bi du ñàkk ñu am luñ ci junj kan mooy sëriñ bu soobee sëriñ bu soobee wax naa ne turam dëgg-dëgg Muhammad la ñaari waajur yi ko seq di sëriñ Moussa Awa Mbaye ak Eh, soxna Asta Waalo Mbakke soxna Asta Waalo moom it ko am solo la ko mat waxtaanee moom jigéen la woon waaye jigéen ji man góor la woon jigéen joo xam ne daawul wax ne eh, su ma doon góora daaw ko wax mës sa xalaat xalaat boobu su ma doon góora moom dafa doonoon dafa taxawoon taxawaayu góor léeg-léeg sax ñi di ko nettalee noo xam ne xëy na duñ ko seetlu jàpp ne dañ koy da dañuy wone ne daal euh, dafa daan sol calu góor nanga waaye yooyu yëpp damaa jàpp rek ne ñu koy nettali li ñu ci jublu xëy na bëgguñoo wax ne daan da daan niru niru lu góor ci kelo yooyu waaye dañu bëgg a wax rek ne jàmbaar la woon ci wàllu ci daara ji jàmbaar la woon ci tool yi jàmbaar la woon itam ci kër gi ndax euh, sëñ sëñ Cheikh Mouhamad Bousso mi nga xam ne mooy mu Bousso Awa Mbaye mi ko yoroon wax nañ ne dafa teel dem bàyyee ko ak njaboot bàyyee ko ak daara ji bàyyee ko ak kër gi itam mu taxawoon taxawaay boobu kon kooku mooy way juru sëriñ bu bi ak soxna jaara ak ñeñu bokkal di ku mel ne soxna mati Buso mi nga xam ne wax nañ ne mooy taaw te moom lañ joxoon tafsir maam baara xujja ñang euh, ba mu am ca euh, ñu baax ñoo ñi di sëriñ ma laamin mati ak sëriñ joogu mati mi nga xam ne tafsir baa dafa jëm mooy seen wayjur ñu bokk ak maam Góor Saane ak sëriñ Modou Fadiama baay euh, waaye itam am amaat nañ beneen jigéen bu ñu tuddee soxna xujja njom buso soxna xujja njom buso mooy maami sëriñ Ibra xujja mi nga xam ne mooy e, doom ju mag yi sëriñ Manumbe ndax moom soxna xujja mbay silla mi nga xam ne moo ko jur doom mi soxna xujja njom buso mii bokk ak soxna jaar ak suñ busoo be ak baay foofu la bokk suñ busoo bi moomu nag ci li gën a not ci ab taarixam ci ak feeñ jamonoom wax na ne du sori mille deux cent trente cinq ci ati ci ati gàddaay gi loolu du du sori 1820 ci ati tubaab yi ndax loolu li liñ ko liñ koy firndeele mooy taarix bi mu nelawe boobu moom xam nañ ko ndax alxaaji Mbàkke Buso mi nga xam ne kenn la ci njabootam euh, boroom xam-xam bu mag boobu moo ko taarixal moo taarixal ak génnuk jamonoom taarixu génnuk jamono googu nag ci lañ sukkandiku kon te tudd na at yee itam donte am na ñaari wax waaye am na bum mu ci gën a wéral te mooy juróom-ñaar fukki at yi ak juróom loolu na buñ ko seetee bu soreek date bii ma wax te mooy 1235 hijriya tolloog 1820 ci ak gën a jamonoom euh, at mi mu génne àddina ak weer wa ak bis ba sëñ Mbàkke da koo tudd dafa wax ne tuufiyal waalidu aama subba say an azzi umrihi wa qiila kunhu xay wa huwa al asaxu duhra yawmi ithnayni li zayidi l xijjati duuna may ni wax ne sama waajur wi di sëriñ bu soobe mi ngi nelaw atum subba say subba say ci taarixul jummal soo ko seetee mooy doon mille trois cent douze hijriya tolloog 1895 1895 rek yaakaar naa bu ñu ko waxee dana fàttali ñëpp demuk bu baax fi ñuy waxtaane ak dundam Cheikhul Khatib ak demam ci géej hmm. te ku ne xam na ne bi mu bi muy waagi dem ci géej gi te nekk te nekk Mbàkke ci la sëñ bu soobi mii di nijaayam génn àddina ci Mbàkke Bawol sëriñ bi waree baar yi ñëw jaale si ko wax nañ wax nañ sax waxtu boobu sax ci la sëriñ baara xureeja moom maam borom saam feeñ sëriñ bi jox ko tur daal di delluwaat bàkki baari loolu doonoon ni ko sëñ bàkki waxe ci ñaareelu bayit wi fukk fan ak juróom-ñaar ciw tabaski maanaam ci la sëñ bi soo bi nelaw sëñ bi ginnaaw dat boobu la ñëw jaale si maanaam bisu tabaski bi daal ba mu dellisee ci atum 1312 tolloog nekkoon bi su altine ci waxtu tisbaar sëñ Mbàkke nee na ci la sëñ Bousso bi génn àddina dund nag nee na nag am ñu wax ne dund na juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar mooy iz waaye mu ne am ñu wax kunhu kunhu kaaf vingt la nuun cinquante la hë gi di cinq soo ko boolee mu jox la soixante quinze mu ne mu ne nag loolu moo gën a wér nag soixante quinze yooyu moo gën a wér kon moo tax boo euh, boo delloo ci ginnaaw da nga gis ne kon 1820 ja wala 1300 1235 ji ci hijriye mën naa nekk ak feeñam jamono du ko sori moom sëriñ Bousso bi moomu nag am njàngam li ci ëpp mi ngi ko jaare ci ñaari way juróom yooyu nga xam ne nag jëkk ay nit daara lañ mës doon dale ca maam yi ba ci ñoom wax naa sax ne jëlale naa way juróom mu góor ma busa aw mbaay waaye soxna ja soxna astawalu mii nga xam ne mooy seen waajur mook soxna jaar ak ñu bokkal daara ju rëy rëy la yoroon yor na ko ci bawal yor ko ca jolof yor ko ca saalum rawatina ca naawel bi nga xam ne sëñ Bousso bi moo ko sancoon jamonoy al mujahid al kabir al imam malik ba te gën ci maba joxu ba dinañ ci ñëw léegi kon ci diggante boobu ci la jànge alquraanam tàmbuli ci njàngum xam-xamam soga nag laxas ngir topp xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa bi wax ne utlubul ilma walaw bi siin na ngeen sàkku xam-xam doonte da ngeen di gàddaay laxas dem ba siin fu daara ju mag masa nekk ci réew mi dem na fa jàng fa fànn xam-xam ga nga xam ne mooy ga fa gën a siiw di moo tax boo ci minan Cheikh al Bachir day wax ne fekk boobu day wax sax ci Maamoor Anta Sali mu ne li ma jàpp moom Cheikh Amadou Bachir mooy ne sëñ Mor Anta Sali ak mbokkam mu baax ma di xaritam ba di koo xam ne mbokkum daaraama muy sëñ Mbusoobe jàpp naa ne ñoom ñaar ñu ngi jële fànnu naxwa ci sëriñ bu mag ba nekkoon Euh, Kajoor muy ma Massamba Anta Thiebo Diop mi nga xam ne moom la sëñ Mor Anta Sali tuddee sëñ Massamba Mbàkke caat mi mu nee na jàpp naa ne fànnug na ci foofu lañ ko jële ndax nee na gis naa té benn téere boo xam ne kenn ci ñoom ñaar benn muy sëñ Bousso wala muy sëñ Anta Sali kenn ci ñoom ñaar daal moo ko def ginaaw bi nga xamee ne jeexal nañu benn téere bi naxaw boo xam ne ibnu buuna moo ko taalif ba demee ci minan bi chaqroon alusa chaqroon taxqiq ci xaamis ba da fekk leeral yu am solo yu leeral ci téere téere bi ibnu buuna booboog ak maanaam nam ko liggéeyee ak ci aju yëpp daal kon bu ku bari ku bari ku teel a bari xam-xam la moom moom sëriñ bi waaye xam-xam bi <clears throat> da ko boole woon ak jikko ju sell ànd xel mu rafet booleeg njàmbaar gu dëgër gu tar waaye nekk nit ku wóor am amaana moo tax Cheikh Ahmadul Bachir àbbal ko bayitu woykat ba nga xam ne da doon melal ku mel ne sëñ Bisoobé ba wax ne moom de ko ki may wax dafa boole ak njàmbaar waaye boole ak toroxlul boroomam moo tax boo ko dee seet day mel ne jàmbaari xare joo xam ne day doon imaami juma wala imaami jàkk mu ne loolu nag dara ganu ko rafet jamaa sujaata walxudua li rabbihi ma axsana almixraaba fi lmixraabi <clears throat> euh, loolu mu wax nag ne ku amoonu njàmbaar la euh, njàmbaar gi dafa am ay firnde ndax léegi maa ngi junju al imam malik ba bi muy jihaad Saalum xam ngeen dafa dajale foofa mboolem kàngami kilifa yi diine ak njabooti diine yi nga xam ne ñoo nekkoon ci diggante Kajoor ak Bawal ak Jolof yóbbu leen foofa ngir bëgg ñu ne ci wetam comme da doon jihaat ay noon noonu lislaam bëggul bu ëllëgee bu noon yi jekkoo donte moom mucc na ñu dem dal ci ay bokki jullitam yi nga xam ne ñoom seen yoon mën naa am nekku ci woon ndax mu ne damaa bëgg ngeen ñëw fi sama wet ñu àndandoo liggéey bi mu doon itam kaaraange ci yéen loolu dox ci lu yàgg waxtaan ci kilifa lu yàgg maam Baara Xujje mii ma doon tudd léegi euh, bi mu ko fekkee Jolof waxtaan na moom maam Baara ko fa ab diir di diisoog magi Jolof yi ak di xool ba xam ndax euh, kii li ko tax a jóg lu mu doon waaw ba mu demee ba gis ne ku dëggula ci li muy wax ku dëggu ci li muy dox itam dane kon nag mën nañoo dem ànd ak moom dem Saalum loolu moo yóbbu mag ñi Saalum loolu xam naa day loo xam ne lu gudd la loo xam ne buñ ci duggee dana ki waaye bi nga xamee ne nekk nañ foofa ci biir jihaat yooyu sëñ biso bi njàmbaaram gi da caa fes ndax daawul yam rek ci di jiite ci jàkk ji wala boog di jàngale xam-xam wala alquran waaye da daan dem di ànd ci xare ya di xeex loolu euh, suñu mag ju baax di ma di di euh, sëñ Thierno Bousso moom sëñ Moulay mas na mas ci waxtaan ak ñun xamal ñu ne daana dégg ci wayjur yi ñu wax ne nett li ne euh, moom sëñ Bousso bi ku daan fekk jihaati maba yooyu la te daan taxaw taxawaay yu am solo wax nañu sax xare yi nga xam ne moom la imaam Maba mujj def jàpp nañu sax mooy ba nga xam ne ca la des booba sëñ Bousso bi àndoon na ci bokkoon na ca te ci nettali mag mag ñooñu magi Bousso yi wax nañ ne ci ay loxoom la des ci ay loxoom la shahid ba muy euh, ba ba xibaar bi siiwee ba agsi soxna Sawalo ñuy wax naan euh, sëñ Bousso bi des na ci xare ba soxna Sawalo dafa mel ne ku waat wax ne man de li ma leer mooy sama doom du des ci xare nga xam ne loolu daa mel ne ku ko waat suñ kër daana ko nett lu bari eh, nee na waaye amuñ lu may rek jékki-jékki mu agsi war ci fas bi daal di wàcc summi yére koŋ yi mu soloon bal yi ko doon dal ñu koy dégg di wadd benn naan put put daal di koy lalal teg ci teg ci yére yi waaw kon loolu di firndeel ne daan na daan na na xare ji te incha allahu xaside gi ma doon junj léegi am na xaside goo xam ne Cheikhul Xadim def na ko ci moom ñëwee ci ñaareelu jataay bi ci sëñ bi soobe dana dana ci fest dana ci leeral moom sëriñ bi njàmbaaruk njàmbaaruk nijaayam ju baax jooju moo tax bu ne jamaa sujaata wal xudu ala rabbi xudu ala rabbi moom toroxlu boromam moom kooku sëñ bi soobe moom ku ko xam wala nga jàng taarixam da nga xam ne ku ragaloon yàllaa ngoog ku bàyyi woon xel boroomam ku sàmmoon ndax ak sàmmam rek day tegtale ak ragal yàlla ndax sàmm ci eh, meññetum ragal yàlla ci la bokk wala màndargam ragal yàlla la sàmm te ak sàmm moom lu jégg woon dayoo la moo ko mayoon sax mu nekkoon ku yàlla mayoon ijaaba yàlla mayoon ijaaba nga xam ne lu masam ñaan yàlla yàlla dégg nga defal ko ko eh, moo tax jikko yooyu nga xam ne moo nekk moo nekk ci moom moo tax Cheikh Amadou Bachir bi mu koy mel dafa wax ne nekkoon na sëriñ bu bu màgg bu bari xam-xam bu bari fànn yu mu xam ci wàllu ci mboolem xeeti xam-xam yëpp waaye nekk itam sëriñ bu yew waaye nekk it ku set xol ku laab biir laab biir biiram dafa laab ba noppi ay jikkoom teey ay meloom it nekk melo yu ñu gërëm loolu Cheikh Amadou Bachir wax na ko ne wax ne kaana cheykhan jalilan wa aaliman nabila daahira al qalbi tayib al axlaaqi mardiya simam loolu euh, moo tax xam naa Cheikhul Xadim euh, seede woon ci moom seede bu am solo boobu nga xam ne maa ngi ko jële ci suñu baay sëriñ Ibrahima Bousso Mbirkilaan moom mu jëlee ci woy juróom sëñ ma Samba Faati sëñ ma Samba Faati doomi doomi sëñ Bousso bi la euh, sëñ ma Samba Faati jëlee ci Cheikhul Xadim Cheikhul Xadim wax ne man dey sama nijaay sëriñ bu soobe laa niru jikko dama gimmi rek ñu toqi ma ci makaarimul axlaq loolu du man dong maa ko toxale ci sëñ Ibrahima bu sumil kilaan waaye bari nañu ko ñu ko ci toxale ndax bañ ci waxtaan ak moom mu ñuy nettali xissa bi booba euh, mbooloo lañ woon moo xam ne dañ doon gëstu ci jaar-jaari sëñ bu soobe ku mel ne sëñ Abdul Ahad Buso Cerno euh, mi nga xam ne moo jiite allañ saqafiya attabia li daayira muqaddamatul xidma ci la bokkoon te kon doon nekk seede euh, loolu sëñ sëñ sëñ sëñ Ibrahima Bousso mi ko nettali euh, ci baayam la ko jëlee mu Samba Faati mu Samba Faati jëlee ko ci Cheikh Xadim wax loolu ci làmmiñam loolu nag mën naa bañ a jaaxal kenn ndax euh, ci biir xasida googu yi sëriñ bi di wax ci moom danaa ci ñëw am na fu ko ci waxe naan yow kat sa jikko yi nga am jële woo ko fenn fudul ci kiñ la tudde rek ndax kooku rek nga niru Muhammad Bousso Muhammad sa turandoo moom nga niru ay jikko moom nga niru ay melo ci la ko waxee naan ko euh, mudaahin musammaahu mudaahin kii dafa maanaam niru ki ko tudde bu ñëwee ci xas gi incha allah dana dana gën a leer kon sëñ Bousso Boye ngoog bokk na ci lii wane ne ñëpp doyloo woon la ci xam-xamam bu bari ñëpp doyloo woon la itam ci kóoluteem mooy ne lii ma doon nettali léegi te mooy al imam Maba Jaxu bi nga xamee ne dajale na kilifay diine yi Saalum lu jiitu mu leen di yóbbu dafa dafa dafa toog ak ñoom ne leen man damaa bëggoon comme mbooloo lañ ngeen sàkk ci seen biir koo xam ne da leen di doy ci jikkoom doy leen ci ay meloom ak ci xam-xamam ci ragal yàlla am lépp ngeen tànn ko mu teg mu nekk ci seen kanam su ko defee ñu di ko laaj lépp lu jëm ci diine lu waay soxla ci wàllu fatwa mu mën koo taxawee di euh, maanaam doxaliinu mbiri jullit ñi itam daa rek kon day doon imaam maanaam imaam agu mag gi daal na ci loxoom donte moom al ma bo mooy ki nga xam ne mooy maanaam kilifa gu mag ndax moo moom moo jiite euh, maanaam jihaad ci liggéey bi waaye nag lépp loo xam ne ahliyatu tadbir la ak surutul fatwa fatwa dañ koy tekki loxol kooku su ko defee ngir muy laay biir jullit ñi bi mu leen bi mu sàkkoo loolu ñoom ñëpp ñu ne tekk ken waxut mu daal ne kon nag maa ngi proposé ci yéen kooku doon sëriñ Mouhamad Bousso mii muy muy sëriñ Bousso bi waaye nee na kenn tegu ci baat ñoom ñëpp dañoo daal di ànd ci loolu daal ci daal ci jubóog moom nee mu daal di koy yóbbaale nag yóbbaale mboolem ñi nga xam ne ñoom seenu dem jàppandi na booba moo tax bi ñu ñëwee Saalum sëñ bu soobe sañ ci naawel euh, sëñ Mor Anta Sali sañ ci Poroxaan euh, tafsir baara xujja sañ ci aafe Saalum googu Euh, bu ko defee nga xam ne yooyu yëpp ay diggante la yoo xam ne sorewuñ noonu ndax ñoom ay sëriñi daara lañ euh, kenn ku ne dangay am say dongo am sa njaboot goo xam ne bëggoon ñu jaxasoog nit yi àddina yi bu defee fa leen di yare fa leen di jàngale moo tax soxna Sawalu mii nga xam ne mësta tàggoog euh, mbokkam ba doomam ji doomam ji mësta tàggoog moom waaye mësta tàggoog it ak mbokkam mu baax mañ ñu waxtaan waxtaane muy muy tafsir Mbàkke mi nga xam ne fu ñu mësa ne ci Jolof ak ba Saalum fépp ñu daan nekk moo waral sax ñu bari jàpp ne Tafsir Mbacke Ndoumbé ñu ngi ko denc ci Saalum ci naawel googu nga xam ne fa la soxna Sawaalu tëdd ndax loolu moo fi yóbbuwoon soxna Sawaalu mooy nekk gi fa sëñ Bisoobé nekkoon sëñ Bisoobé daan baagante léeg-léeg mu nekk naawel léeg-léeg mu nekk itam capital ba nga xam ne moo doon ñooro bu ko soxlaa foofa ci wàllu ay lijjanti ay mbiri mbiri ay ay ay mbiri moo xam état civil wala wala wala àtte daal ci yooyu day dem foofa teewul itam daan dem ni ma ko waxee di ànd ci jeexaati ma ba ji kon tafsir Mbàkke Ndumbe am nañu jàpp ne ci xëy na yoo xam ne jël nañ ko ci sëñ Ibrahima Muslim mi ma doon tudd léegi euh, wax ne euh, jàpp nañ ne mi ngi naawel foofu ci euh, penku soxna Asta Waalo nga xam ne sax xamuñu exactement jëmmi xabru ba waaye nag fi fi mu tollool fi mu tollool moom nattale nañ ko te mooy daanaa keroog tàkkusaanu xabru soxna asalaalo bi euh, foofu lañ jàpp ne fa ne kon mbokk yi euh, lii daal xam naa ni mooy li nga xam ne moom lañ waajaloon tey bëggoon ko def ab tënk bu ndaw ci dunduk euh, sëriñ bu Bousso bi mi nga xam ne mooy nijaay Cheikhul Khadim te bokk ci sëriñ yi nga xam ne jàngal nañ ko alquran moo tax ñu indi ko sax nag ngir lay taaye ko li nga xam ne moo di maanaam njàngum sëriñ bi bu ko defee incha allah nag des na diggam ak sëriñ bi danañ ci ñëw ci euh, suñu jataay bi ñëw bu ko defee su boobaa euh, dana gën a leer taxawaay bi nga xam ne sëriñ Moussa bi taxawoon na ko diggam ak Cheikhul Khadim taxawaay bu rafet bu am solo boo xam ne euh, defe naa mat naa jàngat bu baax baax baax baax kon ñoo ngi tënk foofu suñuy kàddu di sant mboolem ñi nga xam ne ñoo ngi doon teewlu ñëpp di ñaan yàlla defal ñu tawfiq ak sant sëñ jiidi Abdul Xaadir xam ne moo féete won ci wàllu euh, maanaam caméra beeg ak lépp loo xam ne image la bañ man mën koo euh, seetaan ci wàllu xarala gi ñu ngi koy sant baa di gërëm di leen jox daje weer bi di ñëw incha allahu taala asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa سنته الخرى وإني أحمد